بسم الله ينبلها yow mi yor sa sànce bëgg karole sa kër ba muy nes na si gaawal gaaw seet si waa Taïf Karo ñu ngi fii jàkkaarloog hôpital CTO nee naa la ay karo ya nga xamante ne bii du os du furi da ngay fomp muy gën a rafet fii dong la ci Taïf Karo ji bi Bamba mooy gérant bi karo yu baax yépp fii la ñu joxante rendez-vous ci suñu biir place bi nga mën fi fekk karo italien espagnol wala indien yu ci mel ni ay grès poli 60 60 wala poli 1 mètre 20 nga xamante ne bii pour salon la salle wala couloir Aïkaro ay décoration pâte de verre yu amul fenn ay faïence pour cuisine wala toilette lepp lo soxla ci walu baguette amna fi fii yow mi soxla ay carreaux parquet gawal gaaw ñëw ci Taïf Carreaux andil len ay sièges anglaise yu bes tax ya nga xamantene bi ay nouveau modèle la waxna la lepp lu jëm ci walu sanitaire Taïf Carreaux mo ci mën ay carreaux grès salam grès émail wala grès poli 60 60 ay pâte de verre ba ci ay plinthe ay marche escalier wala contre mars, ay espagnol 60 60 60 40 40 wala 50 50 nga mën fi fekk Jibi Bamba mii nga xamante ne bii spécialiste la ci wàllu jaay karo mbokk yi nee naa la roy du nuroog pire te ki mën ak kiy jéem bokkul jëlal suñu numéro téléphone jokkool ak Jibi Bamba ci 77 745 76 88 ak Taïf Karo seen jafe-jafe ci wàllu karo jeex na tàkk. aywa sëñ Mor ñoo ngi lay ziar. waaye maa kay. di la fay baax mu baax. a baax. tey Ada sa doom la suñu xarit la suñu soppe la. muy obligé donc ñëw kër ga yëgal ko ñu bàyyi suñu ñëpp ñëw teewal ko si bisam ndax ñu am bisam te bis mu neex la ndax dañu weeru koor ñu si benn bis jël xew la war di ko dimbalee doomu aadama yi ni koy ñaan rek yàlla sàmm ko si yàlla aar ko si yàlla may ko gudd fan ak wér seen si xam ne bu nekk xale nekk ndaw nekk ci làmb di bay li nga mooy waar tey mu woote li nga mooy donc benn satisfaction nga waaw kontaan rek kontaan bu baax a baax ndax su ko neexoon mu jël xaalisam mu def ko feneen wala mu mais lu toll weeru koor mu jël xaalisam woo ay nit di leen berneel loolu jënd sax yàlla ndax yombul daal joxe ñam yombul te mooy ndayu jaam yàlla yi su dee ba nga def kon dañuy sant baax di ko si ñaareel at mu mun du ko raw. daaw heure bi tey jii boo amoon benn gis-gis bu ngay ci lan lay loolu yëpp di mbir suñu borom la sant yàlla yàlla suñu borom moom mooy dogal ay mbiram nu ko neexee jaam bi heure bi mi nga fekkoon si prison bi ren génn gis tey bi kon sant suñu borom la aara la te suma waay la suma doom la suma lépp la aara fas amul lu muy dugg suba ngoon te du ko yëg amul amul lu muy def suba ngoon te du ko yëg barke sëñ Babacar waaw moo tax tey ma bàyyi lépp ñëw teew yokk Ada Fass sëñ nekk ci côté li nga xamante ne mooy irrigation ci côté li nga xamante ne mooy taxawaayam ci làmb lan nekk sëñ waaw mu gën a góorgóorluwaat gën a taxaat jaaj yi gën a entraînement xam mbër bu ndaw ndax aada Ndakaaru saabu kii di buy génnee fu ñu koy topp war naa tax mu bàyyi caaxaan bàyyi foo gëm boppam xam ne ay centaine de millions moo nekk si kanamam te su amee benn taxawaay bi si làmb si kattu yàlla ma xam dina si jot incha allahu rabbi. fan lañ mën waaw mën na séntu Modou Lo fi naan séntu Balla Gaye fi naan séntu Yékini fi naan séntu Tyson ndax am na dayo bi am na mbooloo bi am na bërëb am na fit bi dañuy defar quelques réglages yu des jeunesse yu si moom yàlla def ko champion mais Ada xale la bu ko def rek am champion te ñu am champion bu soobee yàlla. yéen a mag cooli bëri na moom guy laa bëgg sëñ Mor à chaque fois gis waaw waaja comme naan waaja guy gi ndaanaan la champion la mbër mag la du mbër bu ndaw ñu jëm si bis bu mag mu am importance trop si carrière Ada Fass ndax Ada Fass daanee gi dina ko ubbi lu bëri bëri si lamb tam nañ si yaakaar baax a baax ñu koy waajal di ko ñaan yàlla mi yor ndam may ndam bu seen guy incha allah non c'est la première fois nag si carrière am parce que nag Ada ñu mu ak guy du benn wax dëgg yàlla guy moom expérience ëpp dayo ëpp lépp waaye am nañ si yaakaar baax a baax a baax incha allah moom na dem entraîné rek moo ko sas. kon Ada Fass moo war a ñëw. Ada Fass bu pare physiquement moralement mentalement Ada Fass boobu moo war a ñëw jàkkaarloo ñëw waaw. donc nag bëre deel yi mënuñ kaa xaar bëre deel yi. lépp a ñëw lu ko raw lu ko rawee ñëw si combat boobu di ñaan yàlla may ndam daal baax a baax moom na nekk suñu war a nekk rek te mi ngi suñu war a nekk wax dëgg yàlla coono naa bari mais Ada mi ngi baax. mais mbër bu yéene daa mystique moom guy gi. mystique du dara. mystique du man ini indi mbër ko mais du Ini indi mbër jàpp si galaaj loolu ko ma xamal. li ñu daan ko mais doo indi mbër ñu jàpp ko si man loolu laay xeex si laam su bay indi mbër ñu ko jàpp si galaaj ma bàyyi ñaan parce que bi nga waxal ak fay la ñu ko man bu fay lay mu jeex. mystique ci non non non. dara pare na dëgg yàlla bu gisee ci dara. mais lu jaaxal gars yi mooy jat bi guy gi di jat ci digg géew bi ba arbitre sifflé ah loolu dara loolu guy gi jat na daan jat na daan loolu dara fii ni ku nekk loo def rek def nga ko daan def nga ko daan te suñu borom moom moo sax doon ay mbiram waaw yàllaa fi ne nan dem ba bis ba la set bu soobee yàlla am na mooy gis nañ Sa Touba mu toogoon ci benn plateau nekkat élection yi bu nekkoon tey Amadou Ba mooy jël réew waaye bu ñëwee suba élection yi ku ma ci laaj ma wax kan jël li nga xamante ne mooy ndam li mais bu yi jàllee gis nañ gaa yi ngay vaar xam nga gaa lan nga noonu nga gisee sëñ Mor. waaw xam nga Sénégal ñoo xam ne communication Sénégal mooy da لي تاي مو ام ساتو بانيات ولا مام wax na minute fois buy am su waxee benn yoon amul du moom man mii damay wax lu am du am kenn na kenn day wax lu am du am maanaam mais xam nga Sénégal dëgg la moom dafa neexul communiqué daal loolu nag du dara min nañ ko mis nañ ko parce que bis ñu ànd ay var yooyu yëpp léegi la am mais Sénégal mooy ne li ngay wax muy am ñu koy bàyyi xel bis boo waxee amul rek lépp li nga waxoon dootul baax mais sadoument daanaan la wane na ay preuve am marqué na empreinte am la champion moom xam na man xam naa yàlla na ko defal jàmm yàqante bi nan nga ko gisee sëñ Mor wax dara loolu Anta wu ñu jël ay vidéo di ko dugalal loolu nan nga ko gisee. billaay walaay wa taala barke Cheikh Tidiane moom su ma gisee sax mënul ñu far damay am loo métti te damay xam ni la soog te chaque jour nga bu yóbbu ma ñaata mbëraay mu daan saison bi presque 3 ans xaw ma defet ma yóbbu ñaabu ndaw mu daan ma dégg ñu ne loolooy Sénégal da ngay dégg mbër bu daan ñaabu ndaw loolu dégg si moom champion la fii du wàllu Sénégal keroog ba mu daan nga dégg muyul mënul bëre loolu mooy Sénégal Sénégal boo leen foo xam ñu ni fooyee boo leen xam ñu sport mais loolu dara ma yooyu yëglu ma sax sa saa bisan yëpp dama for mentalement ban taxawaay la war a am ci mbir mi ak tey ji bu ëllëgee la war a taxawee moom Sa Touba ça moom daanaan la moom kenn du ko wax muy taxawee parce que yàgg na si média xam na communication mi na communication day defaraat lu bëree bëri xam si ay noonam mu jeex rek la vie continue élection yi ñu doon élection élection yi jeex na tey ñu gis leneen Sénégal amul lu jeex loolu gis day jeex sant yàlla rek ndax di nga dëggal li gars yi di wax yenn maaraay dañuy yàqante yenn maaraay dañuy bëgg seen morom maaraay def erreur ba ñu wax ay nit ñu génn fertu beneen ak yooyu noonu nan nga ko gisee waaw mais loolu maara boog bu ko def xam nga dara maara cuuna moo yéene moroom maaraam safa su fekkee sa xol dafa rafet mu wóor nañ yàlla rek mu ne si yow baati mu ne si yow doo yéene sa morom maara safa man naa bépp maara buy ñaan ma xam la ma ñax la xam si lépp loo ne billahi wala dama la si dooleel ñaanal la yàlla yàlla ma ñaan dam moo tax man saa yu ma ñëwee bis ma tiit sama xam ne sama xol dama yàlla suñu borom di fay mais ñun nañ bàyyi loolu ñoo fa ñu ko ne bàyyi ñooy demlante te lu si gën a garaaw muy ñun maara ñëpp ñuy déglu téléphone ñuy demlante di diggante mais bu ñu déggee micro xam nga ku ne di war a yee dara mais amul sens daal ñëpp ñoo faar nañ jàppal daal tax yàq sa morom Mara est-ce na nga raw ko. déedéet da tax nga gën a teel a gaaw ngay gis ñu yàqante amuñu sax brique brique bi moo seen bopp Mara ngay gis ñu yàqante amuñu sax brique loolu soxor la soxor mënoo ko defar di avancé nan suturalante jàppalante yàlla tax ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay tey man war a mën a def loolu nag suñu noonu la saatu bay téléphone woo ma ni ma sëñ Mor bon li ma defal nii defal defal nii Mor Cissé la même chose sëñ Mor Cissé même chose loolu laa seqee ñun mais li sax ma rek ku nekk sa xel mu toor rek. macha allah ñoo ngi rafetlu li nga xamante mooy sa teewaay fii. jërëjëf ñoo far di leen ziar jaajëfal. aja kontaan naa baax a baax jàmm ci yéen.